onze bi la ci sangu sang yi Seydina Mouhamed di sant suñuy ñaari waajur di sant suñuy dëkkandoo eh, tey nag dañoo ñëwaat fii eh, ci fondation MK bii di troisième édition bi ñu koy def eh, defoon nañ ko depuis daawaati jéeg daaw ñu def ko ak ren jii yàlla nañ yàgg di ko def ci jami ci jëmmi Seydina Mouhamed ñu koy def nag chaque année deuxième vendredi ci weeru koor wi mu nekk ay dons yoo xam ne yii euh, vraiment euh, ñi koy def maanaam dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne yii mënoon nañoo jël seen alal sànni ko fu leen neex waaye dañ ne seen alal dañ ko jël bokk ñi nga xam ne nii euh, seen loxo jotu seen ginnaaw te mu nekk initiative boo xam ne bii initiative bu rafet la ndax bu ñu nekkee ci kaw. jël am seen alal macha allah liggéey ko ak foofu nu mu méttee weeru koor jot weeru koor nu mu teddee ak suñu borom lu mu ci wax ku def benn ma ma fay la fukk ah ñoom ñu xalaat lu rafet lii ñun daal dañ leen di ñaan yàlla na leen yàlla fal cat daal dañ leen di ñaanal yàlla yokk leen ba ñu yëg ko. di am kontante bu baax ci xewal bi nga xamante ne yàlla defal nañu ko bi ci njëkk moo di sax Ramadan Mubarak di weeru koor weer wi nga xamante ne weeru ngëleel la. weeru xewal la weeru barke la weeru yërmande la weer la bi nga xamante ne moom la lislaam di wax weeru taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan weeru dimbalante ngir ragal yàlla weeru jàppalante waaye weeru weeru jaamu yàlla ndax yàlla di wax na it julitu yàlla yi bu leen dañ di jëriñante bu leen dañ di jëriñ seeni mbokk bu leen dañ di joxe ay ñam kon mu mel ni lii luñ soxla la rawatina ci biir weeru koor mu mel ni weer yëpp baax na weer bu waay def benn ñu fay la fukk waaye nag weer wii bu ci waay defee benn téeméer lañ lay fay mooy weeru koor mooy sax Ramadan mubarak kon nag moo tax wax dëgg yàlla ndaw yi bi ñu defee lu rafet lii woo ñu ci ñu ñëw war leen a jëmmal euh, taxawu leen ñaanal leen gunge leen ci wan leen lii ñun ak ñoom ñoo ko bokk wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko ba fu rafet mën a yem di ñaan suñu borom yàlla mi am kattan yàlla mi am jàmm yàlla yàlla dafa leen jàmm. yàlla mi am sutura yalla yàlla dooli sutura yàlla mi yor wërsëg yàlla na yàlla wërsëgal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi te lii it yàlla na ko yàlla ful ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, di nuyu itam ñi nga xamante ne ñoo jël seen alal def ko ci lii te dara taxul ñu def ko lu dul rek dimbalee ñi nga xamante ne mooy mbokki jullit yi loolu lu am solo la parce que. man dafa may fàttali li yàlla di wax naan yuufuuna bi nasri wa yaqaafuuna yawman kaana sharru mustatira yut'imuuna taama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira eh, kër yone kër si sirna aliyin dañoo jékki-jékki eh, daal di niséer waaye bi niséeree nag ñu daal di woor bi ñu wooree ba ngoon jot ñu yoru yoruñu dara lu dul luñ ndogoo benn miskin taxaw ca buntu kër ga ñu daal di jël seen dugub bi jox leen ca beneen bis ba ñu wooraat ba nga xamante ne dara des lu dul lañ am lu dara du dara lu lañ ndogoo ñu jox ko eh, yëttiim ba ki nga xamante ni jërim la. biñ toogaatee ba nga xamante ne troisième jour bi la kañ tawee woon ca prison bi ñëw ne yéen de yéen a waay kay kër yonent yàlla Mohamed waaye man de maa ngi nii jaaruma ci añ jaaruma ci reer jaaruma ci maa ngi nii daal yoruma dara lu ma lekk. Sirna Ali na ko Aïcha mu ne ah mu ne ko buñ may ne ci nabi dëgg la mais yaa ma ko gën a jege yow mi nga xamante ne doomam nga jëlal ndogu li ñu jox ko ko ñu jox ko ko yàlla nag ne Jibril demal ñoom de ñu ngi matal kóolare ñu ngi jël seen alal ci heure bi nga xamante ne bëgg nañ ko waaye danañ xam ne maa leen gi gën a baax dinaa leen defal jàmmi àdduna defal leen jàmmi yowmal xiyaam kon mu ngi mel ne loolu ak lii benn la même chose ba tey it Sirna euh, Ousmane. Eh, yonent yàlla mu amee nee na wa fii qaala na bi inna Ousmane yasfan sabina alfan wa kullu xaqoo naaru nee na sidna Ousmane bu yomal xiyaam dina rëmu juróom-ñaar fukki junne yoo xamante ne dañoo waroon dem sawara lu tax benn jëf ju rëy xamante ne da koo def ko mu mel nii. rafetlu encore une fois li ñu fi dajalewaat tey parce que ci yoon bu neex yàlla la ñu dajee malgré ñu ngi am leneen lu ñu war a defi. ñu ngi dajale ñëpp ñu ñëw toog naaj bu tàng nga yëkkati ay mag ñëw teg leen bi ñuy ñëw xëy na xamuñu sax lu leen ande donc bu ñëwee gis lii day sedd seen xol. projet bi lu ko waral mooy benn fondation la MK Foundation moo nekk ne ay jeunes lañu initiative bi euh, balaa loolu sax damay wax avant tey def nañ ko deux années successives avant deux années benn xale la woon moo toogoon seen kër. bu vacances jotee lu mu dajale ci ay frère dajale ko ci ay quelques xaritam jënd ko ay dàll ay mayo dem ci daara yi jox ko taalibe mm-hmm. di wax ne tout le temps bis bu demee ba xaw a am tuuti dafa ñaan yàlla taxawal fondation bi MK fondation ne loolu la ñaan yàlla taxawal ñu nekk si di si dem di si dem musul bëgg photo am musul bëgg télé am musul bëgg dara am turam sax bëggul ñu koy tudd mais tey li tax mu def lii télé ñëw ñu def t-shirt wane pour wax ci fondation bi la ndax nit tamit li ngay def ñu la siy ñaanal nga def ko daaw géej def ko daaw defaat ko ren ñaan yàlla continuer di ko def peut-être am na ñoo xamante ne bëgg nañu ñëw def comme moom mais xamuñu ban yoon la ñuy jaar lii yoon la ndax kaay baax ku bonoon sax boo ko nee kaay baax dina toog mu remettre boppam en question jéem a baax xa ci loolu la ñu nekk MK fondation moo nekk nii nekk di defaral waa koñ bi ay xale lañu ñëpp ay xale lañu ki sos mouvement bi 99 la juddu xale bu ndaw la xale tey mënoon nga am beneen préoccupation ne sama xaalis sama siy def sama vie dama siy def dama siy def dama siy def mais dafa jóg pour bokk kook nit ñi euh, don yi mi ngi tollu si suma juumut ceeb bi un tonne et demie ceeb bi une et demie la ton bu nekk ton waa noo du ma wax som bi ton bi tonne bu nekk tonne et kii la tonne et demie la bu si nekk ànd ak ay diwlin ànd ak ay sukkar bu si nekk dañ koo teg ay xale la rekk yu boole dajale seen xaalis mu néew mu bari ñu bokkee ko ñëw jox ko